Euh, merci beaucoup soxna sax man dama bëggoon a leeral euh, le fait que on est parti à Saint-Louis. di def formation bi dafa am fu mu fu mu commencé. fan la commencé. fi mu commencé mooy boo xoolee les spécialités anesthésie réanimation la spécialité dafa manqué ci Sénégal te loolu noonu yaakaar naa ni toutes les autorités xam nañ ko bu baax a baax. nous kenn ku si nekk parmi nous on était dans des postes respectifs respectifs kenn ku nekk am na foo nekkoon di liggéey comme métier bi dafa manqué et tant d'autres ils ont lancé un concours national mm-hmm. tous les Sénégalais yi nga xam ne ni c'est des des des professionnels de santé à savoir infirmier wala sage-femme nga ñëw postuler ci concours bi. Mm-hmm. nga jàll. di def benn formation professionnelle. bu ñaata at. bu deux ans. d'accord. li en ce la là c'est l'U euh, comment dire c'est l'UGB qui en charge de la formation mais c'est le ministère ki est notre ministère de tutelle te ministère moom moo lancé concours bi ñu ñëpp kenn ku nekk am na foo nekkoon yor fa ay responsabilité am fa ay avantages nga bàyyi ko foofu noonu ñëw di jàng si di def formation en anesthésie réanimation durant ces deux ans. amuñ benn accompagnement venant de l'État. financièrement financièrement amuñ accompagnement de l'État parce que formation bi dafa métti si ñun imaginal yow nga nekk si benn barab di liggéey am la doon suturloo. Mhm. am fa ay avantages nga jugee foofu noonu avantage yëpp ñu arrêté ko tu as uniquement ton salaire nga war a dem dundal sa njaboot war jël en charge sa logement bi fi nga xam ne fa nga dem yow yaay jël en charge sa logement sa transport yaa ko jël en yaay jël en charge sa frais de subsistance yaa ko jël en charge sa frais de transport hmm? ordinateur da nga koy jënd pour suivre ses cours en ligne sa frais de connexion tous les trois mois dañuy changer terrain moi je suis à saint mais parmi d'autres dootu nos collègues se trouvent dans dootu régions du Sénégal d'accord alors